xanaa di ko ñaanal rek kontaan ci moom lool wax dëgg yàlla ndax tey fam ñu jëlee sori na wax dëgg yàlla di ko sant di ko gërëm te di ko ñaanal rek ca kaw ca kanam ci kàttanu yàlla ak Serigne Touba Mbacke kontaan nañ lool nag wax dëgg yàlla. koy sant Abdoulaye Sylla mii mi ñu defal tiraanga ji moom la ñuy sant di ko ñaanal yàlla ca kaw ca kanam kàttanu yàlla ak Serigne yàlla na ko yàlla kawel ca kaw a loolu moom dañ ko ci ñaanal di ko ci jàppale. waaw ndax loolu moom bu ko nekkee dana lu lu kii ci ñun lay doon lu baax ci ñun lay doon. rakkam sëñ Saliou Sylla ñu ngi koy sant di ko gërëm di koy ñaanal lool nag mu yàgg fi te wér tey ñaan xéewal gi gën a baawaan saawaan bañ yëg ko lii nga xamante ne nag moom ñu mu ñu koy defal ci teraanga moom fu ñu ci woo ci nguur gi rek ci li mu bëgg rek danañ ko ci wuy te di ko ci ñaanal. ca kaw ca kanam. waaw ñu ngi sant sëñ Saliou si la baax kontaan nañ si yow mi nga xam ne yaa déplacé sonn nga trop si koñ bi koñ moom chaque jour yaa lu baax bëgg waa koñ bi avancé yal la yàlla ak sëñ Fallou defal jàmm defal ko bépp jullit ñu ngi sant Abdoulaye si la bu baax ndax wax dëgg yàlla taxaw ñu taxaw bu rafet ah kon nag nañ ànd ndoo ànd ak Baylaat Diop li mu bëgg ñu bëgg ko si barkab sëñ Fallou ah sëñ Abdoulaye nag ñi ngi koy sant bu baax Abdoulaye si la ñun fan yi ñàkk nañ dox trop waaye mi ngi dimbale oto yaa ngi dimbale yenn kay yàlla ak Sëñ Fallu Mbàkke jàpp li mu bëgg si barke Sëñ Fallu waaw yow la ñu jàppale yow moom foo nekk nekk nañ si yow foo nekk la ña nga ndax li nga indi si koñ bi moom bari na trop yenn la yàlla jàppale jàppale bépp jullit yow daal loo tax foo nekk rek ña nga fa bàyyi nañ añ yi ndax ndox mi añ yëpp naa ñi ngi ci ndox mi jërëjëf talu ñu dara ndox doog mooñ ñu intéressé wax dëgg yàlla root mi moom métti na bu ngeen ñu ci dimbalee nag ñu jël waaw loolu la ñu. nan ngeen def Ablaye Sylla mi leen jàppale tey ko ñaanal rek ca kaw ca kanam waaw di ko ñaanal ca kaw ca kanam rek li mu bëgg suñu borom defal ko ko te yàlla leeral lépp daal te ndox mi gën a ball bu soobee yàlla loolu mooy suñu yitte. xanaa sant ko ko. ak jàppale ko ak jàppale yàlla am sant nañ bu baax ndax ndox moom ku ko may moom moo la jàppale. jàppale gi ñu jàppale ah suñu Ablaye kaw ca kanam rek ñu de moom dëgg yàlla maral lan def lool lu ñu waaye jox daal lu dul ndox joxuñu lu ñu yor borom dëkk bi gis na la ñu ngi ñaanal rek ca kaw ca kanam waaw ñu jàppal ci élection yi mu gagné rek ca kaw ca kanam rek waaw. yaay lamp bi ñuy taal doo fay ndax yàlla moo la taal doo fay nee leen Ablaay yaay sunu lumière doo fay doo sondeel ba ñu lay ab nga fay. ndax yàlla moo la taal doo fay nee leen alaay yaay suñu lumière doo fay doo sondeel ba ñu ndax yàlla moo la taal doo fay nee leen ablaay yaay suñu lumière doo fay. di nuyu waa kër Serigne Djily Wadane gépp di ko commencé ci bopp bi ba ci ci mujj suuf di nuyu tamit. sëriñ Baye Dame Diop mii toog di délégué rek quartier Touba Tindodi bi ci turu waa kër sëriñ Abdou Khadir Diop ñëpp nag Baye Dame ñoo ngi ànd ak sëriñ Saliou Sylla moom sëriñ docteur Sylla bu sëriñ Saliou sëriñ sëriñ Saliou Sylla tamit mën naa ne moom sëriñ Abdoulaye Sylla Ecotra liggéeykatu sëriñ Touba boobu nga xamante ni kenn ku ci nekk gis na ay jëfam ci Touba ndax yaakaar naa ni ku ne xam na ni màggalu Tuuba kenn ku ci nekk camion bu son bu egsiwul sa buntu kër romb na la ci tali bi muy génne mbalit moo xamante ni mi ngi ci biir dëkk bi waaye tamit fépp fuy ab taataa mu ñu fas yéene koo sëkk kooku mooy Serigne si la nekk taalibab Serigne Touba nekk ki nga xamante ni moom moo jaayante woon barabu seex Mouhamadou Fadal bi yeesal ko bam dëppoo ak jamono waaye ki nga xamante ni moo jaayante woon barabu Serigne Sidil Makhtar Mbacke defar ko ba mu dëppoo jamono tey jii rakkam xaritam soppeem moo ñëw di la ziar si ànd ak Abdoul Ahad Diop mii fekk ci fekk sa ko nekk sa jirbaat nekk sa taaliba nekk sa rakk ngeen ànd di liggéeyal Serigne Touba ci koñ bii waaye ànd na ak maam Thierno ak Serigne mbay mii nga xamante ni moo nekk taxaw di jël lii bi ñëwee tamit fekk nañ la fi fekk fi say bokk. fekk fa say taalibe fekk fa say xarit fekk fa say am di jàmb moo ñëw tey jii di la siyaar si bis bi di la ndokkeel di indi ay àddiyaam bu baax a baax waaye nag dañuy deltu ginnaaw tuuti ndax yaakaar naa ni lu weesu euh, un mois bis bu set da fi gis settanam ndox boo xamante ne mooy xet li jaami yàlla yi nga xamante ni ñoom ñooy dëkk ci koñ bi moom mii mooy jël gaasuwaalam def ko ca ya ñu yabal fi sett na mu ñëw bu ñëw fi am fi ñaar wajaas wala wala benn wajaas loolu su ko yëkkati di ko jaarale ci man ngay kilifa koñ bi bis tey jii mu daggaat yi itam jógee ca Ndakaaru Njaay ñëw ba fii day jot nag say mbokki taal bi say xare say soppe ñëpp teew day joti nag ñu leeralaat loolu ba démb rek moo ci mujj bi ma ko fàttalee màggal dana ma foofu de kon li ñuy njëkkee mooy nañ wut ñaari seetal nañ ndox ñu jox euh, sëriñ bi benn bi waa koñ bi ñu jox leen benn bi ndax ñu am tal ak matuk mën a toog sa baas ba diglu jàngi ak discours ya fay juge mu mu ñëwaat tey jii nag indiwaan na beneen seetaan seetaan mi ngi ci gaare ci mbedd bi di xaar pour dimbali waa koñ bi ba nga xamante ne roon mañ daan def mu leen i teq seen i yitte ba duñ mën a dox dem ci benn programme loolee tey jii du am ak suba ñu mën a teewlu la man laa duggale baas man laa jàppale ci bis bi ba ba ni nga ko yittewoo loolu moo sabab li nga xamante ne mooy jàppanda bi mu ñëwee tamit àndaale tamit addiya tamit siyaaree la ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ko saayir ak baatin ak it ki nga xam te ne mooy góor gi ñu xam ko muy wàlliyu ya yaakaar naa ne aw turam sëriñ Abdou ko aw turam ku ko dégg wala nga maasee moom jamono wala ak njabootu maasee moom jamono danga xam ne kooku du nit nit la koo xamante ni ku sun borom teral la sun borom na nag teraangaam na mën na koo def ci alal waaye mën na koo def ci baatin moom nag gis nañ ju baatin bi te ju baatin bi ñun ñi ñëpp moo ñu dimbali ndax yaakaar naa ne de koñ bii ni nga fi toogee xam nañ ko képp koo xamante ni am na loo xam te yënga yënga ko da nga naan ca bàyyi daam waaye yitte ju waaye doomu aadama am tamit fii la ko yaakaare kon yaakaar naa ni takk ndeeru kilifa gu baax googu moo law ba egsi yow la law tamit egsi sa njaboot loolu tax loolu nag ci lañu sàkk sunu ñaanuk donga moom mi nga ñaanal ñu ko bu baax a baax ñaani nag bi ci jiitu mooy bu ko benn dog dal bu nag bu ko benn pakk jigee lépp loo xam te luy gàllankoor la tamit na ko moytu ko ndax ab taalibi la ab donga la ko amub yar la ay waa waajuram la ku bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii moom Serigne Saliou Sylla mi ak magam jo di Serigne Abdoulaye Sylla yow nag xam nañ ni am na luñ la fi bàyyil ndax ñun ak yow ñoo dëkk soo ko nëbbee tamit ñun duñ ko mën a nëbb waaye ndegem ñun xam nañ ko ba di ko wax tamit am ñu yaakaar tamit ñu yaakaar ànd nañ ñun ba ñëw di ko saako si tamit nag ñu ko ci ñaanal bu baax a baax a baax moom nag magam jooju lii di waaj xaw xew ci réew mii ku ne xam na du politicien liggéeykat Serigne Touba la waaye yërëm na waa Touba bëgg naa jàppale ndawi Touba bëgg naa jàppale jigéeni Touba moo tax mu tàllal loxoom daagaan baatu askan wi pour élection 2024 yi ñu fal ko ci te yaakaar na loole am na loo ci man am na lu ci man am na leneen ñeneen ñu ci man ci saahir ak ci baat ñu bëgg nga ñaanal ko ci te jàppale ko ci te tàll ko ci ak fépp foo xam xamante boo fa duggalee sa loxo rek foofee jàppandi loolu ñu ngi koy sàkku ci yow moom nag bu loonu xaalis suñu borom taral na ko Serigne Touba joxal jox na ko teraanga xale yi Touba yi xele yi Sénégal rawatina waa Touba liggéeyuñ jigéen ñi ñu ngi ci mbojjim gerte mi góor ñi jàppuñ ci lu dëgër jafe-jafe yi metti na ah Touba li mu war a am lépp manqué na assainissement bi des na te ku ne xam ne dominam la Matakaas boo demee am na loo xam te ne moo ko fa def ci moyen boppam mbalit ma bu lee dem tey jii moo fa dugal oto boo xamante 16 millions la jar ak yeneen yoo xamante ne mi ngi koy warloog njabootuk sëriñ Touba yi di jël ay nagam di ko def ci bisi Serigne Touba yi di ko def ci gàmm yi di ko def ci jumaa yi lépp loo xam xamante yittee doomu aadama la lu jëm ci social rek ci lay xëy di ci gont moom nag moo tàllal loxoom fas yéene incha allah 2024 incha allahu rabbi ñu fal ko mu nekk président boo xam te ne day dëkk ñun ci Touba day dëkk ñun ci koñ bi boo demee Kournis daal ñu ne kër président fan la ñun la ma nga fële fii la papam dëkk fii la yaayam dëkk rakkam moo ngi nii loolu lañ soxla lool nag ñu ngi koy tàllal ay loxo di koy dàggan ci bis bi dem borom jàpp lañ ci bu baax a baax. mbooloo mu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu tëdd leen siyaar di ñaan ci yàlla suñu boroom seen tànk yi ngeen dikk fii yàlla na ko suñu borom gërëm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam barke maam sëñ Touba maana wax nag daanaka dama ko mënewut waaye euh, liñ ciy def te di ko ci dolli daal mooy sant yàlla moom mi nu may nu daan ko def fekkewaat ko nii noo ngi ñaan fekkewaat ko ay déwén yu bare bare bare tul dikk suñu borom gërëm ko di nuyu sëriñ daam mi nga xam ne tey moo nekk ci boppu njaboot gi yàlla guddalu fanam wéreli cëram te li mu yéenee ak mébét ko lépp suñu borom may ko mu àggale ko tan ànd ko ak moom yéen ñi nga xam ne yéen a dikki di ko siyaare si ak wax ju rafet ji sell ji ngeen wax yàlla na yàlla yokk leen ba nga yëg ne yokk ngeen barke Seexul Xadim waaw ah, mu mel ne daal ah, mbir mi moom kenn ku nekk loo def sa bopp nga ko defal ki nga xam ne moo waral bis bi nag teewe fi nii tey lu ñu wax ci moom ci ak baax ak diine ak lislaam ak bëgg yàlla ak barkeem mm, am na lu weesu loolu waaw la ngeen ci lañ ca mën a wax rek lañ ca mën a wax waaye fu ñu ko tibb ba ba ba yaakaar ne fii fi la romb na loolu yàlla na ko yàlla fayal ci barke Seexul Xadim noo ngi ñaan yàlla nu yàgg koo fekkee te yàgg koo teewe li ngeen di sàkk it te di ko ñaan noo ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa mi nga xam ne amuñu lu dul moom ah loolu ngeen di ñaan moom la ñëpp di ñaan yàlla na yàlla may koo xam ne bu dikkee ci réew mi di njëglaayu réew mi réew mi di njëglaayam ci barke Seexul Xadim xam naa ne fal moom ci suñu borom la ne waaye nag nan ñaan yàlla ki gën ci réew mi yàlla na ko yàlla defal. yàlla dëppoo nag ak sax nag ki ngeen wax ne moom ngeen bëgg na moom lay falu waaye nan ñaan yàlla ki gën ci noonu nu gën ci moom yàlla ko yàlla jox réew mi ci barke sëñ Touba ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Cheikh Saliou ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu la yàlla delloo jàmm nanga nga nu nuyul sa wayjur wa ndax boo ko nee daam jóob bu la nee man la nga ne ko mu gàtt mi mi ngi daa faral di kafal dana la ko xam naa ko baax yaakaar naa ci kaw yaakaar yàlla ndax yaakaar yàlla moo waral nu toog fii di wax ak def alquraanu karim dañ la ñaanal ci yaakaar ci yàlla ak yonentam ba ak Seydina Abdou Khadir Jeylaani mii ñu ñaana ñaan gi li nga bëgg sum def ko ni ko soxlaa sum def ko sum borom jàppale ba yàlla àggale ay yéeneem ci jullit yëpp yàggale ko ci Tuubaa gi ah li ngeen def nag day jëf ju rafet jëf ju kawe joo xam ne ji mu ne ta wax lépp ndax sa jëfi démb alhamdulilahi rabbil alamin dafa rafet lool ndax bi ñuy xalaat ndox mi ak lii ah ba nga yàlla dogal nga yabal fi oto andi ab setterne mu mu doon mbalkaam teg ko tegu ca suuf ba léegi xaajagut ba yàlla dogalaat ci dogalam ba suñu borom dogal ndax léegi la am ku wax moom ndax euh, màggal yi jum yëpp genn gu ne biñ ko jubee fekk ndox dafee manqué lool waaye ba ma bisam bii jubsee la ndox mi sotti ba ndox mi fii mu ne fan yëpp amuñu ndox seetal na baa nga ne xel ba léegi rëbi na baa nga ne daw bare kër yëpp fees nañoo ndox alhamdulilah rabbil alamin mbaax googee mu am ak loole mu am ci Seydina Muhammad am ko ci yàlla buur bi subhaana wa taala yàlla na la ci tibal ah danaa la xamal leen nag <coughs> lii nga jàppe lii ba def nii danaa la jàppe nii telewumaa jàpp nag ndax mosoon na maa dugg ci politique it damaa dem ba yàgg ma bàkku waaye du ma it maa ngi ci biir politique ndax bi ma toogee saa biir ne bi mën na maa informer ñu bari mën na maa wax ñu bari te du ma génn sama néeg bi te li ma soxla la ñuy def te man damaa toog ci ne eh diw waaye diw li ngeen ci am bàyyi leen ko fa ko dem ne ah sëñ daam nee na bu ma nee eh bàyyi leen loolu daal amul solo loolu foofu lay yem yàlla dafa am lu muy def yàlla kenn mus a gis ñu ji ab kaanik ab gerte sax fa waaye suñu borom bi subhaanahu wa taala dogal na tey ci sëriñ Abdou Khadir amuñu martaba mam amoon ak àggunu fa mu àggoon ci yàlla waaye lu nu doogul suñu borom ba defal ko lu nu doogul suñu borom bi def ko loolu am nañ ci yàqin bu wér wér ci fii ni ci suñu dund ni te loolu taxaw ci suñu biir ne bi ne ko Seydina Abdou Khadir nangam nangam soxla naa ko ci diw loolu suñu borom faj ko amul lenn nag amu lenn li ma wax ma ko ngir bànneex waxuma ko ngir yi dara ndax yàllaa ma moom bu ma neexee yàlla loor ma léegi ma fekk fa ay kàcc du ma ko def Cheikh Salihu yàlla na yàlla guddal saw fan li ngay yootu yal na ko yàlla teg si sa loxo njëkkunoo gise tey njëkk gënoo gëj gise waaye xamante nan ndax bi ma ne kër gële ci ci sénga nga ma xàmmi alhamdulilahi rabbil alamin xàmmi googu ma xàmmi yàlla na ci suñu borom ba jàppale euh, sa mag yi ngay jàppale yàlla na ko suñu borom ba kaweel bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa maanaam du ma sëriñ buy wëreelu wala may wax leen damay toog fii jànkonte ki may war a jànkonteel ñaan ko li ma ko war ñaan mu faj li ma war a faj te su ma ci jàppee wax ci wallaahi laasim su borom dana defal li bëgg yal na yàlla doon leen guddal fan wi nag ma ko nuyu lu bari lool danaa ko jàppale sama kem kattan fu ma toll danaa ko jàppale ci baatin danaa ko jàppale ci saayir di maa la ko wax tey maa ko wax xam naa ne insa rabbi su ma doxantoo ba kër niis danaa gisati sa wayjur wa ñu toogati waxtaan alhamdulilah rabbil Cheikh Saliou tàllal say loxo ñu ñaanal la li nga bëgg ak sa mag ji ñu am ko boo ko yàlla jox la ko ci barke sëñ Abdou Khadir wasalaam حول مسير يسير بي الجسد الذي غادني لا كريم علي معروم يسير سكري بأقلامي Sénégalais yi mbokki région de Diourbel mbokki département Mbacké ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey nag ñu ngi fii ci Touba yi Touba Tindodi ku ko dégg xam ni benn quartier la bu nekk ci Tindodi dend ak Touba bàq ya depuis màggal ba léegi nii dañuy am jafe-jafe ndox am ay jafe-jafe yu tar mais depuis booba léegi gis ñu kenn dégguñu kenn kenn lañ gis muy Serigne Saliou la muy ñëw fii ci koñ bi ci ndigalul waajuram Serigne Aliou la waaye waajuram magam di xaritam di soppeem di Serigne Abdoulaye Sylla Ecotra mu mel ni nag Abdoulaye moomu da koo wax. ci wàllu social ñu dox ci wàllu social ba nga xamante ni commencé na un mois avant sax Ablaye di ko sant moom dafa nekkoon ci social boobu ndax mi ngi woon wut ay seetal lay dox du ko ci quartier yi di jàpp ci jafe-jafe yi rawatina nag bi ko président Ablaye si la xamante ne magam la soppeem la xaritam la mu nekk bàyyi faalam ci terrain bi joxaate joxaate ndigal ni ko duggalaan ma ci askan wi gën ma leen ma jàppale ci seen i jafe-jafe ak ci seen i sol ak seen i yitte mu saafarawu léegi nag loolu ci la ci lay dox commencé ko nag li nga xamante ne mooy soxlay nit ñi muy ndox mi nga xamante ne manqué na ci Touba day jël ay citerne di ci def carbila muy wër fépp secteur bu moo xamante ne mi ngi ci biir Touba te yittewoo am ndox rek incha allah rabi na yi danañ fa dem jéem leen jéem leen dimbali ci am ndox loolu nag. dafa nekk loo xamante ne mooy mbébétam mooy bëgg-bëgg parce que léppam social la léppam social waaye actuellement ni dañoo gis social bi nga xamante ni moom la soxna yi gën a gën a yittewoo muy wàllam ndox ndax ñoom de dañ daan fajaru marché di am ñaari téeméer suñ amee ñaar teen bu ñëwee faj seen sol waaye loolu mënatuñ ko li tax mënatuñ ko nag koo xamante ne boo demee marché yaa ngi xalaat ndox moo sangoo ndox moo naan ndox moo jàppoo ndox moo sangee say doom loolu nekk jafe-jafe si sa bopp dootoo mën a liggéey wala boo amee ñaar téeméer soxla ya daan dootu mën a demati parce que ndox ñëpp koy soxla léegi nag Serigne Saliou Sylla ak Abdoulaye Sylla loolu lañ xam xam ni soxna yi ñaar téeméer yi ñu am bëriwul dañ fa war a def ci ñoom ñoom na ñu jaayante ngir jëmmi Serigne Touba ngir dëkk bi ngir dimbali population Touba ci seen i jafe-jafe wàññeeku bu baax a baax ñu jël ay citerne ndox di ci def ay gasoil muy jege population bi ñu leen a mën a servir ndox di leen bandi a bu baax a baax a baax xool na lu tolloog presque cent mètres yoo xamante ni programmé na ko dana ko def ay teewoo waa koñ bi tamit man cee xëcc ay rabina wër na fii fépp xool pota yi nga xamante ne war naa am ay lamp tamit incha allahu dana ko def ay làmp ñi nga xam te am na ay jafe-jafe ñu mel ni ay ordonnance wala yeneen jafe-jafe tamit yi nekk ci kër tamit jël na ci ay responsabilité ba yu bare bare rek la rek na ko saa pour cent kon nag ñu koy ñaanal am na programme boo xam te jël na ko ci social muy carnet mutuel de santé. dana programme gox bu ne mu fexe ba dugal fa ñaari carnet xamante ne carnet bu ne dana mën a jël dix dix-huit personnes yoo xamante ne dana ko dimbali askan wi pour maanaam ñu mën a faju faju gu yomb kon nag ñun sénégalais yi rawatina ñun waa Touba fu ñu buñ jéggaanee dañoo neex am nañ candidat mu mat candidat candidat boo xamante ni taalibe Serigne Touba la ci dëkk bi lay yeewoo ci dëkk bi lay wootee boo ko woowee mba boo ko woowee Mbàkke lay wuyoo ah kuy sëb moo tuddale ci kenn ci njabootu Serigne Touba gii di joxe addiya Eh, sëti Serigne Touba yi fi nekk ah di def ci bisi yi bisu alxuraan bisi diina yi màggali kooku yaakaar naa mooy suñu candidat kon bu ñu wëriwaat beneen candidat bu nu Abdoulaye Sylla ndax gis ngeen lii kat moo ko waral man de politicien laa ah dëkk ak ñoo xamante ni dañoo sonn musuma gis ku jàpp jàppale waaye depuis ñu xam samay dolee ak sama bëgg-bëgg heure bu ma soxlaa ndox ñu ngi fi bu ma amee ordonnance bu ma jaaxle danañ ko saafara bu ma amee yeneen yitte yoo xamante ne tamit ci bi la ñoom it danañ jàpp seen képp laay kartal kon mbokki Tundóodi mbokki Touba mbokki departement Mbacké benn kaan daal lañ am muy Abdoulaye la ba deuxième bi dafa dolli cere yokk ñeex ndax lii da doon ko def waaye nag du koo gën a làbbili nee na bu daan def juróom day def fukk lépp loo xamante ni social la te doomu aadama du koy yittewoo ta social yaakaar naa ci doomu aadama rek ci lay commencé ci lay yem taxaw na ci parce que dem na ba dana servi ndongo daara yi ay mbalaan dana sëri ndongo daara ji ay fëgg jaay dana jàppale ndongo daara ji si ci ci ñu leen di fóota di leen toppatoo parce que dongo yi dañoo bokk ci population dongo yi kon waruñoo xañ ma rawatina ne ndaw bi yeewoo Touba kon yaakaar naa social foofee mu mel ni kon deuxième phase bi commencé na ta ni mu commencé mooy yitte yi nga xamante ne waa Touba soxla nañ ko muy lii commencé na ko te incha allahu rabi lii dako bool seetlu na ñoom mais da bool ay teewoo ay kilomètres yu bëree bëri yoo xamante ni dañ koy gas mu dugg ci ville quartier yi mooy privé yoo xamante ne amuñu woon fuñ fuñ yaakaar amuñu fa takk kon foofu may lancer appel nii bépp village boo xam amoon ndox. jàpp na Abdoulaye Sylla mi ngi ñëw mi ngi yabal Serigne Saliou Sylla kon nañ ci bàyyi xel bu baax ba te xam ne incha allah mar naan marul naan gi gars yi daan ñi xam te ay politiciens ñoo daan ko ñoo daan ko mbubboo te daawuñu ko def moom mi moo jaay te moo koy def incha allah parce que déggoo nañ ay politiciens yoo xam te ne dañ daan wax naan mar naan marul naan buñ defaree juróomi meetar fa la ah duñ dimbali askan du jige population bi kon ñooñu yaakaar naan dañ daan wax di teg rek ki nga xam te te mooy Abdoulaye Sylla ak Serigne Saliou te incha allahu rabi ñu wéyal kàddu yi tuuti rek euh, leeral am ay leeral yuñ ci apporter tuuti rek mooy comme président Abdoulaye Sylla ni mu ko bëggee comme deuxième phase bi comme que ci période du parrainage yi lañ nekkoon doon ci yëngu am ci taxawaay bu am solo nag waaw am limu parenage bu set boo xam ne ni ànd ceeg équipe bi ànd ceeg Abdou Lahad mii mu def ci liggéey bu am solo moom ak équipe am ànd ceeg ñëpp population Touba bi yëpp. ak ñëpp ñi nga xam ne ni gëm nañ li Abdoulaye Sylla ji def ñu ànd ceeg ñoom def ci am ci wéyal nit ñi am ci yéene di la woo fu nekk ñuy dem di pare ne parrainer parrainage nañ ko bëggee nag dem mu parrainage citoyen bu bu set wecc wuti ji ko mu leer naññ lépp mu ngi ci vidéo yi fépp fuñ ci dem dañuy dem ñu parrainer naturellement non comme nam ko bëggee woon bi ci topp mooy ndigal lu wàcc ndigal li wàcc nag nee na deuxième phase bi mooy dañuy préparer wu dugg ci quartier yi commencé di animer quartier yi quartier bu ñu ci dem ci Touba ñu tànn fa benn xool association ba fa nekk wala mbootaay ma fa nekk wala jeune ñi nekk ci quartier bi ñu dajale leen waxtaan ak ñoom organiser leen ñu préparer wu bu ko defee dès janvier ñun janvier ñu tàmbali suñuy yëngu-yëngu dès janvier ñu commencé def ay activités di animer quartier yi ba tax na animation quartier yi ci social lañ koy anime di def ay café di waxtaan di def ay porte à porte di jàppale askan wañ fa fekk ci seen ay seen bëgg-bëgg lii nii suñu ginnaaw firndeel na lépp fii bi ñu fi ñëwee ti di jafe-jafe bi ñu fi fekk muy jafe-jafe bu metti muy wàllum ndox mu bari nag ci quartier yi ci Touba Touba ndox mi sonal na askan wi ba tax na président Abdoulaye Sylla da ciy amal jéego yu am solo fépp foo xam ne nii am nga yittey ndox dañuy jël ay citerne yóbbul la ko fa suba incha allah dañuy dem fële ca euh, Guédé Bousso buñ fa jógee dañuy dem Aliya dem Sexaw ga dem feneen ak feneen ma dem Saam quartier yi ci Touba yëpp daal incha allahu rabbi fépp nga xam ne ni am nañ jafe-jafe ndox président Abdoulaye Sylla am na yéene yi fësal fa boppam incha allahu rabbi ñu ànd ci équipe yi duggaale ci quartier yi. commencé defaale sensibilisation bi formé waale jeunes yi fa nekk association de femmes yi association jeunes yi ñëpp ñi nga xam ne ni dañu bëgg adhérer ci mbir mi parce que ñu ngi woo fépp te fépp fu ñuy woo na ngeen ñu xaar danañ ñëw danañ ñëw danañ taxaw ci bëgg ci seen i ci seen i jafe-jafe incha allahu rabbi comme niñ ko defee fii président Abdoulaye Sylla moom ku nekk xam na yéeneem ci askan wi ci taxawaay ci askanam ci mën yërmande ci askanam ba tax na ñun ay ndaw lañ te xam nañ xàmmee nañ ràññee nañ li nga xam ne nii sant nañu ko ñun waa Touba war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax parce que taxaw ji mooy suñ taxaw ci suñu bopp taxaw ci mooy taxaw ci suñu askan. di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ca kaw ca kanam sant sëñ Abdoulaye Sylla mii ñu indil xéewal gii nga xamante ne ñu ngi doon jànkonte lu méttee méttee méttee méttee. ak sañ Saliou sila ci ndox mii nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu ca kaw ca kanam ci kàttanu yàlla tu Touba ndax kontaan na lool nag kontaan nan lool. lépp lu muy bëgg itam nag. buñ ko déggee rek danañ ko ci jàppale bu baax a baax a baax a baax ci kàttanu yàlla incha ñoo leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di am contentement bu baax a baax ci jàppale gi nga xam ne si jàppale ngeen ñu ci ñàkkum ndox mi rawatina Serigne Ablaye Sylla mi nga xam ne si moom def deful dara bàyyi ñu xelam ak xalaatam yëpp mi ngi si ñun xam ne niñ sonne ci ndox mi dara naqariwuñ nag ci dëkk bi lu dul ñàkkum ndox mi rek ndax ndox moom daa bokk ci nit ndox dafa bokk ci nit ndax loo mën a am te amoom ndox. amoo dara ndax da jigéen da nga soxla fóot soxla toog soxla raxas soxla sangu te boo amul ndox doo ko am lii nag lépp nag sëriñ Ablaye Sylla nag ca kaw ca kanam ñoo ngi koy ñaanal yokkute di ko ñaanal fu mu bëgg a yegg moo ko xam yàlla na ko yàlla yeggal ci barke Nabil Moustapha kontaan nañ bu baax. waaw mu doon président ñëpp fekke nag suñu xol seetlu na guyu ci moom lépp nag mi ngi nii ndax jigéen ñi ñu ngi nii ñàkkum ndox moo waral lii lépp tëruñoo tëdd ba nelaw seen xel dal tëruñoo lekk ba suur seen dal waaw yàlla yàlla def jàmm kontaan nañ bu baax a baax.